émission bi teenu ko bàyyi benn yoon nañu waxante dëgg papa san foo jëm toog ba yàgg nga ni may ñoogu gay Basiru Maane nuyu nañ leen ziar leen bu baax du dëgg maa ngi maa ngi nuyuwaat ñëpp rek mami mami nga ni mburoog soo dañoo tàqalikoo yanko ba lim la def ci coupe du monde bi dëgg yàlla xamoon na ni bu fa jógee problème dina tàmbali yée yée yée internet yi ak lan ak lan moo xewaatoon sama digg sama ginnaaw hmm. waaye nga ni Abdoulaye Daouda Diallo moom la yóbbu fële moo wuutu moo wuutu Idrissa Seck man de daa fan yi am na lu ma doon dégg nag dégg naa dégg naa chaise buur bi daal ku ci mës a teg sa bët rek xaaral hmm. hmm. xaaral ma dem seeti ba baax bi kii. Hmm. seeti dem seeti ma dem di seeti sekk ba xam. toogal toogal toogal pare gu ma de damay laaj ay ay ay ay ay eh man it namoon naa leen de mais ndeket lii yëpp bàyyi ma ko fi woon mburoog soow tàqali ko dans l'histoire du ponché lii mu ngi soog a am dans toute l'histoire du ponché jusqu'à nos jours ñu yàgg a ponché depuis 1960 jusqu'à nos jours xam nañ li ci ponché soow ak mburu bu ñu xasee ba taqaloo nga def suukar léegi-léegi nga def ci miel ça dépend ci ku nekk ay ay mbay anta waaw bu foroxee nag bu for bu bu dee soow mi daa forox kenn ne walla mën nga ko tàqali ponché kay bu duggee dugg nag pare nag du dëgg hmm. ah waaw ndax mburu ak soow déggoowuñu rek hmm. ci waxtaan ne dañoo kii mburu je parle de mburu et de soow sama yoo nekku ci. jaxase tuur mami fonce n'est-ce pas c'est ça. sama yoo jaxase lekk wala jaxase tuur rek. sama yoon. sama yoo nekku ci. man namoon naa nag sama siis bii nag dëgg la. Mhm. Mm, namoon naa fii. parce que fii ndekete moo gën a neex fee nee paasan. Mhm. fii moo gën a neex fee nee. donc tubaarkaal la sama siis bi moon naa ko lool nabu nag del ñëw nag du dëgg. ah yàlla baax na. waaw kay del ñëw. del ñëw nag. man de démb émission bi dënti. ajaratu. ah Idrissa Seck añ. Eh, benn député la am nee na mooy chef de l'opposition wala waxoo loolu. benn député ba day dem. bu faraxee ñu tuur ko. non inscrit. Ah? internet yi xam ngay xaritu nabu koor lañ nag. Mm-hmm. dama xamul lu nu lu nu wax nag lu ba kii ay lii mu mbaa jàmm. yàgg baax mi lii mbaa jàmm la. Ah. loolu nga bëgg ma waxal la ko. ay ca wax nabu ah waxal nag. dégguma dégguma de wax naa ñaari fan nañ waxante dëgg. noo man waxuma de damay laaj rek dama jaaxle nekkuma fi au fait. nee na pour nga lire liir commentaire yi nga wax ko ci kaw. mooy lan. waaw. man démb bi ma géddee dañ na ma ku gedd sa yaay aye bu yàqee may la xóoñ mais garaawul boobu day fekk nga moom ay bi nag du dëgg ah nañ waxtaan nag sama yaay ceeb ba dana neex boo géddee sax wax dëgg yàlla dalay neexal. Mhm. mami waaye aw sa yaay awa njaay ngi lay neexal de wax dëgg yàlla hmm, sama yaay bu man day awa mu lay neexal sama yaayu xol la Babacar Njaay gi lay neexal yee Jeanne Gomis Assane Njaay si nijaay mu ngi lay neexal eh, eh, eh, Majee Johnson mu ngi lay neexal Jeannette Gomis mu ngi lay neexal Basiru Maane mu ngi lay neexal Njoogoo ngi lay neexal tubaarkàlla waaye yow mami ku gedd sa yaay ay yooyu tamit ah donc sama yoon yooyu tamit amoon na fi sama yoon sama yoon nekku ci. man man damaa bëgg a xam. tamina mën naa laaj tamina xoolal xam nga xam nga lu ma lay gën nag. pétrole benn nit xaw ma ci dara tous. xaw ma ci dara ay Sénégal. ci dara comme da ngaa feebaroon na boo ñëwee yow seetal fi nga fekkoon kii bi rek nga buux. bu bu bu bu nu indi benn problème dëkk bi dafa yëngu. ñaareel pétrole <laughs> man de keroog paasan laa dégg fii mu toog ci plateau bi di wax mel ni moom moom réew mi réew mi benn nit moomu ko nag wax dëgg yàlla du ñu kenn du doon def waaw du doon neef paasan kañ la doon réew mi en fait c'est ça moom problème paasan di wax ci pétrole beeg gaz bi mel ni moom moo ko moom en fait ah, paasan naana lépp yàlla baax na hmm. baabakar li ngay foowee na doon dëgg di xef yooyu ngay wax na ñëw de hmm. Hmm. ñoom ñoom nit ñi réew mi dafa yëngu ñoom ñu naan la ay dinaa damay ay xefu dol ci gabanaan nan waxante dëkk da ñëw nag mami kii député bi nekkoon yee euh, réew mi sit moom nee na day dem non est-ce lay nekk finalement est-ce que la jurisprudence de Mimi Touré ne va pas s'appliquer sur elle ah <laughs> si elle ne s'applique pas ñu xalaat ni rek kon bu soo ba tey tàkkalewu ko xam naa dañoo waxtaan rek pour bëgg réeroo hmm. loolu la woon ah, dañ ko daal ah man kiiwu ma mbay bul wax loolu seytaane ma bul wax loolu <laughs> wax loolu damay laaj dama feebar donc il faut ma leerlu hmm. ah waa mami kon baax na loolu rek a xewoon ci réew. waa kay ko del ñëw nag du dëkk del ñëw nag. del ñëw gedd sa yaay aya. waaw ñëw. Eh, yow yàgg a baax da nga gedd yow. <laughs> yàgg a baax de fii mënu fee geddee moom bu soobee yàlla yàgg a baax moom day ñëw par force. Ah, yàgg a baax léeg-léeg mu ah. gedd di. yow nag na bu moom boo geddee xamal ne sa yaay aye bu yàkkee may lu xooñ bu sombee jox la nga naan ma yàggali la ko yow man sama ayu yaay dafa neex awaa gedd gedd kay gedd loo bokkul njël li ma jël mi ci ci laa bokk sunu yoon nekku ci ma gedd de ay réew mi tamina bolo tamina dégg naa Pikine dafa amoon kii pétrole bu génnoon ci kii xale yi di ko tànk réew mi bëri pétrole nag ak gaz yàlla baax na eh, eh, eh, eh ah soxna Batoor maa ngi lay nuyu pour ma copine I love you so much maa ngi lay nuyu bu baax. moon naa la ah ah, ah ah jërëjëf am na benn internet ma ko fàttali boobu tamit ma la ko fàttee wax. xar yi nekk kii xar yi nekk Abidjan. waa waaw ah, loolu dama la ko fàtte wax tamit. mbaadu ñoom ñëpp dañuy taxawaalu mais ku ku ku lii <laughs> amuñu amuñu même njëkk moom mooy suñu bëy yi nekk suñu ginnaaw koñ rek. <laughs> ñoom ñëpp billaay ñoom ñëppay taxawaalu mais kenn nag moroomam bokk ci bokk ci njëkk ñii vingt mille ñii vingt cinq mille ñii trente am na nag yuy jar cent mille. yow Alassane laay demal fële. yàlla baax na. ñu joxal sama yaay ji cër sama sa goro la sa yaay ji. sa yaay ji bandi la tir yàlla yàlla xam rek dooy na merci beaucoup waa Nabou. Mm. man damaa déggoon ne da dem mën wuti ji ay lunettes yu bees comprendre ma. mu samay lunettes. ah man de loolu laa comprendre woon kon xëy na njuumte am na de kon de ki ma jox information bi moom jox ma information bu baax. li moo tax journaliste daa war di vérifier di recouper en gala. Mm. door a wax. tourner la langue sept fois avant de parler tey jii tey jii nag la expression boobu nag gën a baax gën a dagan tourner la langue sept fois avant de parler na bu koor lu jàng nga ko école waaw léegi yow loolu looy rëccu ci li nga wax ku gedd sa yaay aye waaw sept fois waaw dëgg la te El Malick Ndoye nee na nul ne peut plus de deux chroniques buissonnières consécutives nan waxante dëgg alors ma nuyu soxna Batoor du dëgg da koy nuyu bu baax de ziar bu baax yàgg baax moom geddam bi yàgg na bàyyi ma dem. ma dem ci sommaire bi du dëgg ñëw na ñëw na ñëw na yàgg baax ñëw na ñëw na. Mm, mm, mm, Mbay demal ci mami mami amal loo wax Mbay. Mbay Xalifa yaay Daba Njaay Babacar Sadikh mbay nuyu nañ la ziar la bu baax nag on espère que yow itam yeewu nga ci jàmm ndax xam nga ne yow nag bu ñu xëyee yow la ñu war a gën a jagleel nuyoo képp koo gis ndax bu internet yi duñu seetaan di bëgg ci yow lay jaar mbay anta sama waa ji yow ak Paate ak man Mansour nuyu nañu leen ziar leen bu baax toute l'équipe technique na bu suñu xel dem na ci ndaak aussi ñu ngi koy nuyu bu baax di ñaanal way juróom bu jigéen boobu yàlla yàlla fëkk bokk voilà elle nous manque beaucoup beaucoup voilà et puis ndaw faxa faxa faxa aussi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ah, dégg manifestation yi dégg naa ku ci ñàkk ay ah, dangeen waxtaan ci xutba bi. xutba bi waxtaanee nañ ci ko ba pare waa waxtaanee nañ ko altine. du ngeen ci wax seen ah seen xalaat lan la woon lan ngeen ci xalaatoon. kan ñun. li ñu ne ku ci dee da ngay dem safara. xam naa ñàkkul ko est-ce que doo arrière cassette bi dégluwaat ko ba xam. Paa wax na ci lu bari de ak oustaz Diaga. Mm. wax nañ ci lu bari tuwaar kàlla. ah xanaa boo ci gaañoo nga dem diir ba ci yàgg nga ñàkk sa bakk assemblée nationale nar a neex yëg ngeen ni euh, benn boo ko yaakaar nekkatuñu majorité mhm. Mhm. àdduna day dox moom fi mu ne nii réew mi moom day dox moom kuy plan yàlla la dàq plan les plans vous avez les plans. waaw mais Dieu a le plan. ki nekk dix ans auprès de Macky Sall. du président Macky Sall. waay waay Baal Aaroon te mu démissionné Baal Aaroon na kilifa bi borom xam-xam la de xam-xam la de. waaye yow moom it dafa démissionné yow loolu da ngeen ma ko fàttee wax. yow nag li la rëcc yëpp nag mënoo koo dabu. àdduna gëm yàlla munoo dabu lépp nag li la rëcc dafa bare li nga daw dafa bare. dëgg yàlla dégg naa statut du chef de l'opposition tamit dañ koy waaj a jox mburu. Oh, oh, eh, man de kaay ma conseil bi ma Jeannette Gomis jox ci suuf paase nee naa la ko transfert nga déglu ko. ah moom laay def noonu laay wëyee. papa quand le train est parti il faut il faut. rëcc na ah, loo ay yaa tooñ sa bopp de. faut être sérieux. amina mbooloo ginnaaw mburoog soow amatul kay. ah loolu moom mënul nekk dans toute l'histoire du ponché. waaw loolu la yàlla dogal. c'est la première fois ma gis. tu es spécialiste en ponché mais c'est la vie aussi il peut arriver des jours où t'as pas de ponché. il y a plus de ponché a pare. non non non y en a pas. si je nees madame je vous en prie y a la vie. Hmm. parlez avec vos internautes vous leur avez manqué. moon naa leen demee tamit li fi xew dafa bari di sekk. Oh, euh, gis nga nag da nga wax si va la vie sama xel dem ci wayu waaja nu mu tudd ndeysaan. Euh, dimbali ma si va la vie la vie. vieux Mag Faye va la vie vieux Mag koy nuyu bu baax bu di ko ziar. mu nga Kër Massar ah, xam nga ni ngay riijee Kouthia ak ni ngay doxalee jongoma yaataaru ndeysaan. Mm. le grand greffier. ah wax gis nga ko. muy nduroog walax jaan ndeysaan. grand greffier grand grand soliste. ainsi va la vie ainsi va la vie yooyu ko. Ah, Mbaye Anta. ponche bi dañ ci def tuluku na waa day weex nag finalement day weex mais ba tey ponche la hmm, tey leen ci ci ci ponche bi du dëkk yàlla baax na. ah. ah. ah. neex na neex na Nabou xam nga way bi est-ce que. Mm, mm. du Touré Kunda. Nabou Nabou yow tamit Nabou tëj leen émission bi arrêtez leen vous arrêtez là respecte-nous quand même il faut respecter les gens ah, arrêtez les respecte-nous respecte les quand mais mais respecte leen émission bi te dem quand même ah mais euh, kii ngaa la am na rendez-vous nan dem faut arrêter faut arrêter moo bu ngeen nekkee xale nag kon ngeen toog yem place xale Mm. ay nekk ci biir mag ñi xam bul laajte nga yàlla ah. fii mag fay mii nu waxtaane ba teg ko nga naan ay ainsi va la vie bu bu tiiti bu mag bi nga naan ay Touré Kunda ay ah. ñooy borom fondinke waaye wow xale yi jël xale yépp fi mu ne ni Casamance loon dëkk ah muy ñaaw de na ba jamono ji moom xale yépp Casamance loon dëkk euh, xale yi koo ci wax mu ne la Casamance laa juddu fàllu sax gone gu ndaw ga ndeysaan bañ na bañ na sol grand bu ba summi na ko loolu la yàlla dogal àdduna mën a dox mm-hmm. ca yàlla ku wàkkirluwul ci borom bi doo am dara mais nag waxtaan dina dina mujjee am de seen biir ah na kat dañuy toog waxtaan ak ñëpp waaye nag ku bëggul ñëw du la forcer te ku gédd sa yaay ay yàqee may la xooñ <clears throat> man ñi ma nekkal ci plateau bëgguñu wax. yow yàgg baax luy sa problème tey. kan euh, kan moo yàgg baax nag yow tamit man yow dimbal leen kan moo la yàgg baax ah yàgg baax moo la kan dimbal leen arrêté ah. Hmm. lii la mu doon nuyu nañ la baax xar la. yàlla baax na. bàyyi lu Papa Ndiaye ak Coro Ndiaye Coro Mandela la nu bëgg ngeen bàyyi leen. Mhm. waaw dañ leen koy ñaan. bàyyi leen doomu jàmbur ñu dem toppatoo seen bopp nit kenn du ko tëj kaso. koo xam ne yow yow ñemewoo kaso di tëjaat loolu baaxul. bàyyi leen li ngeen di def dañ ciy dañ ciy ñëw léegi. ci ponk bàyyi leen li ngeen def waay waxtaanee. Ah. ndax fan yi moom xam naa ne ngeen jeex. bàyyi leen li ngeen def. ngeen jeex de. nee na jàpp rek jàpp ñi di wooñ ñi awee léegi leen fi desati sept heures trente sept neuf heures ñu ñibbi incha allah ci kon ma dem kàttanu borom doxala donc bàyyi ma dem ci ci ci sommet te moom jaratul muy gudd fi mu ne nii juróomi juróomi journaux rek doy na si mën nañ koo dindi sax de ah mën nañ ko sax bokk hmm. noo ko nuroo kay ah yàlla baax na ah léegi ngeen jeex de xaama dem ci sa sommaire bi. kan ak kan ngay wax waaw na jàmm tukki jàmm xaaloo kan moo la jeex yàlla ñu yàlla dimbali. muccal ñu ñu ne fi ci jàmm ak salaam ñun ñëpp dara bañ ñoo dal. nee ko tataf tàpp de nee ko fantam fulum. minal baj baj baj fulum minal baj baj ne waa ji moom nee na. oh. d'accord ça marche pas. d'accord. <laughs> aywa bàlleenu nag. <laughs> bàlleenu bàlleenu nag te te ah, oh, c'est malvenu hein. Pape baal nu de j'aurais dû m'absenter cette semaine là. baal nu baal nu baal nu. fii dafa am foo xam ne da ngay oh. julli ñaar raaka fay 1000 francs mais non arrêtez quoi arrêtez bon euh, je vais enchaîner avec. Euh... <laughs> Cheikh Touré mu ngi leen di nuyu Cheikh Touré. Cheikh Touré fay ko bu baax. ñu ngi koy mm, ziar bu baax baax a baax. ñu ngi koy nuyu bu baax alors on va on va enchaîner avec le sommaire du mercredi 26 avril 2023.